exister jamono ji ndongi tàmbal nañ ñàng meeg mi ñu bëri daal di euh, jël yoonu école ba mu nekk moment bi nga xam ne ñu bëri ñu gisante ci ñàngalekat yi ci way ñàngaan yi ci ndongo yi ak acteurs yi nga xam ne ñooy liggéey ci école bi ngir lépp jag ubbite gi nag mi ngi ci contexte méttee mét ñu bëree bëri nar yaakaar ne kat dara nar diggu doomu ba tax na itam rek wàllu nawet bi moom kenn fàttewu ko ndax lu jege rek ñetti téeméeri école daanaka ñu ngi ci ndox mi ay établissement plus yi nga xam ne la ñu ñàkk rek ci yaa personnel enseignant bari na waaye tey tamit ci nii mbaa ci nee dana nekk rentrée scolaire bu nga xam ne daal ñii daañu tàmbali ñee moom du ñu sax wax wax ubbite ndax ci région yi lu ci mel Ndakaaru ak li ko wër kon slogan bii di ubbi tey jàng tey loolee sax mënatul fexe ba kenn di kon lu bëree bëri gis nañu kat dana métti lool ci nga xam ñooy way ñàngaan ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi waaye ci parents yi dana gën a métti ndax gis nañ ne njëgu fourniture yi na ak yër yi nga xam moom la nar a sol wala sax dem bëgg dikk bi kon tamit lekk bi wax ñu nopp ndax gis nañ ne moom lay dundee loolu tamit yokk na aslëf ba ñu bëree bëri ñi ngay gàddu seen loxo ak a yuuxu frais d'inscription yi nag moom kenn waxaale ko ak grève yi nga xam ne mooy liggéeykat yi ci collectivité territoriale yi tax na ba kenn mënta am kayitu juddu ñu bëree bëri mënuñu inscrire seen doom ndax jamono ji yaakaar ne kat waxtaan a fexe ba syndicat d'enseignants yi tamit seen loxo bañ cee dugg ndax année 2023 bii nga xam ne dana nekk ci année électorale dana metti lool ndax ñu bëree bëri yaakaar ni kat bis bu tàmbalee ñu bëri daal ñu bank seen loxo kenn dootul jàngalee ci kon tamit wàllum orientation ak science ci wàllum éducation dafa mel ni sax dafay nar a nërmeelu rawatina école bi nga xam ne moom lañ jàpp na nekk na bërëb bu nga xam ne sàkkukaayu xam-xam la waaye dafa sëngeem lool kon assises nga xam ne defoon ko maanaam pootum biir bi ñu defoon ci njàng meeg njàngale mi ak waxtaan yi nga xam ne def nañ ko ak ndogal yi nga xam tukkee ni ci gouvernement yi loole rek bañ grève yi gën a yëngu waaye nag tey la wulee ñaay ndax dafa mel ni ab oto oto boo nga xam ne daal dafa paan kon ñu gis tamit école ci boppam am na mission bu nga xam ne moom la war a rangoo mooy fexe jébbal xam-xam waaye tamit foo xam ne dañ ko fay daal di yaa jàllale te loole kat war na mën a fexe ba li nga xam ne mooy citoyen ba ñuy xaar ci ëllëg mu nekk koo xam ne kat kenn du ko dut baaraam a qualité bi nga xam ne moom la personnel bi war a daal di rangoo bu ko defee rek société bi jag